bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa mbokki jullit yi eh, gis nañ fii Madina macha allah dañ ñëwoon pour julli fajar eh, alhamdulilah daanaka pare nañ ñëpp a ngi pare pour del seen hôtel yi maa ngi nii ànd ak eh, Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane sa gars yi London ak fu nekk si àdduna bi macha allah jigéen ñi moom damay seen place yi dañoo dem rek uti zam-zam ñu ngi ñaanal ñëpp nag bàyyiwuñ kenn waaw góor ak jigéen mag ak ndaw fu waay nekk si àdduna bi ñu ngi laa ñaanal yàlla mi am jàmm yàlla na yàlla defal jàmm ku ta ñëw fii yàlla na yàlla yombalal ñëw ñëw ñëw fii waaw yàlla na ko yàlla yombal bépp julit ku ñëwoon tamit bugg a ñëwaat yàlla na ko yàlla yombalal fii daal mooy madinatu madinatu ñu ngi ko ooyee taybatu tayba daaru tayba daarul hijra macha allah bari na tur madinatul munawwara fii lañ nekk di nuyu ñep nak di ziaré ñep di ñaanal ñep jàmm assalamu alaykum wa rahmatullah